campagne bi incha tey ci zéro heure ci minuit lay jeex ñi ngi sant yàlla bu baax moom mi nga xam ni moo ñu may ñu def campagne ci jàmm tàmbale ko ci bisimilah rahmaani ko ci alhamdulilahi rabil léegi nag lenn moo des lu ngeen ma laaj lu des ndam lii on na ba noppi. l'excellent. l'excellent. la coalition a gagné. le président Macky Sall a déjà remporté l'élection. kon fi mu ne nii li des mooy ñu dimanche incha allah. li ñu fi dajale tey kenn ku nekk xam na kenn ku nekk xam na suba samedi ginnaaw suba la dimanche ñu jëm ci ay élection yoo xamante ni dañoo war a tànn un président de la république te nag ñun candidat bi ñu àndal kenn ku ne xam na ni mooy l' moom mooy candidat bi gën ci candidat yi muy le président Macky Sall may wax ne bu bu dimanche bu dimanche na ngeen teel a génn teel a dem wote ji a taal añ waxoon naa ko je le répète et je réitère añ yi bu leen taal dem leen vote ba ñëw doogar fu taal seeni añ góor ñi amul añ ba pare amul xaaral ma naan dem leen wote ji ba pare doogu ñëw añ su ko defee balaa 5 heures incha allah gi leer. nanu farlu fab sunu kër bu ñu xeex bu ñu xuloo. dëgg la bu ñu buskulente dem wote dellu si ñëw toog àndandoo nag ak Mamour Diallo dégg naa fi nag ay wax ci dëkk bi. dëgg la dama ni wax jeex na. dëgg la jëf la ñu wax. jëf la te jëf ji bu soobee yàlla yonent bi mooy dimanche. nous appelons Andendo ak Mamour Diallo élire le président Macky Sall premier tour premier tour premier tour je lance un appel à la jeunesse gis ngeen meeting à caravane Macky Sall def ci biir réew mi meeting à Yoyi caravane c'est la jeunesse qui l'a accompagné ñoo ko mobilisation c'est la jeunesse qui nous accompagne il vous appartient à vous jeunes de finir le boulot et de le finir en beauté